Yanka Junior Tidiane Faye numéro 2 Yanka Junior <laughs> Tidiane Faye ñaar Yankaw Junior Tidiane Faye numéro 2 mais Tidiane Faye mi dafa osé Tidiane Faye mi dafa pànk <laughs> waaw tax ci ki kay foo di ko dégg Yankaw Junior Tidiane Faye Yankaw Junior Yankaw Junior Tidiane Faye numéro 2 Yankaw Junior combat spécial baa ngi noonu eh ah Tidiane Faye Tidiane Faye numéro 2 bu Tëngéej ak Yankaw Junior Yankaw Junior Tidiane Faye abi kaay leen ñoo ngi ma Adama ñoo ngay xeex mais Tidiane Faye mi pànk la de. Youssou Ndour boo gisee ñaari xale ah ay champion lañ de Tidiane Faye dafa mën a bëre mais Yanka tamit daanaan la waaw dugal dugal na léegi léegi coup Tidiane Faye jox na si koom Tidiane Faye jox si koom nii mais dafa mel ni. kii kii kii xeex bi en a woo loolu la bëgg. mais bu ñor la. maa mel nii si. loolu. ndax maa ngi fi rek. dafa mel ni nga la mën a. ah. ah dafa nuyu. waaw am na léegi bi dox ci loolu la saa waay da ngay yëngu-yëngu. eh Tidiane Faye Tidiane Faye daw na ka eh, que amul est-ce que carte amul est-ce que carte amul Tidiane Faye nee na jeex na Tidiane Faye nee na jeex na daan na yankaaw eh daan na ko Tidiane Faye def na carte d'appui Tidiane Faye daan na ko. Yane Faye ndaanaan la